ne dernière partie émission ndaxte cette euh, semaine bi euh, comme la coutume, on a beaucoup parlé de politique balaa nous ñëw ci euh, politique bi proprement dit pas paase mhm. six mandat d'arrêt international bi nga procureur l'ancien éco, ci kaw ki nga l'avocat ce fameux avocat célèbre de Sonko johan Blanco ban procureur de la République sénégalaise <laughs>

billaay lijjanti moo sa wax boo boo ma ko waxee rek ma xam ma tontu lu tu lu xuwaan def. xaw ma ka lan la def lan la procureur wax ne moo justifié ak tam encore ban procureur moo ko moo ko moo bu Sénégal. Hmm. kilifa bi nu mu tudd encore. moom procureur. Hmm. ah xool ko xoolal nga wax ko. Abdou Karim Je suis moo le procureur bu remplacé sunu baay bi. Mm. Euh, Basi Serigne Bassirou mm. Diop sûr. C'est sûr tu es sûr. C'est sûr. ok lan la accusé. Bilay, boo ko accusé <laughs> accusé man tant que vous avez ton ça on avance toi aussi. non wax ma lan la def lu mandat d'arrêt international. voilà lu def. Oh, voilà si euh, vie euh, politique euh, sénégalaise surtout par rapport à les plaintes CPI yoy adresse ko mandat ah, non de du non non non non xoolal xoolal bu baax jàpp xoolal say information billaay xoolal say information xoolal say information waaye xoolal say information soxna si tëb mandat d'arrêt international waaw bëggee bëggee ma ma génneel la ko xoolal rek nga wax ma man boo ma ko waxee rek ma xam mandat d'arrêt international xullil rek nga wax ma xoolil nga wax ma. waaw avancer soxna si ah dañ ma wax lu xawaan def nee ma xawaan lii la def ma xam ma <laughs> ko waxee rek ma xam boo ma ko waxee rek ma xam lu xawaan def wala mënoo ko wax. jàpp euh, mag du këpp boppam ndox surtout ba dee ndox ba bon wuy ma mhm. aw ci commentaire aw ci commentaire aw ci commentaire pourquoi aw ma ci commentaire ma ci mhm. commentaire Quand nous avance, pas Hassan pour parler euh, d'autres choses plus importantes par rapport à la euh, révision constitutionnelle. Binga Hamne, Mounanyokne, Fasiline Nkoyo, Bofoflesi, euh, Assemblée euh, nationale pour Wartane, euh, Yinga Hamne. Euh, <coughs> jël leen ko si foofu le si dialogue national bi mu nekk les dispositions des articles 29 et 87 bu charte fondamentale bi nga xam ne mun nañu wax ne day permettre ñenn si ay candidats yi ñu retrouver li nga xam ne mooy euh, seen euh, éligibilité euh, ñu bëri jàpp ne ne bu ñu defee boobu les révision dina on dina dinañ am risque di dissoudre li nga xam ne moo nekk assemblée nationale non en fait man man je dis je dis une chose euh, les cas kilifa yi Karim Wade. Hmm. mais ak Khalifa Ababacar Sall xam nga la si nekk. Hmm. Hmm? injustice moo C'est amoon ca -hmm. enrichissement illicite lañ doon jiñ Karim Wade amul. terewul ñu téeg. la ñu jiñoon Khalifa Ababacar Sall amon. terewul ñu téeg injustice vous que que dañu nous rectifier Alhamdulillah. si ça doit passer sur le plan pénal ak la des assemblée nationale Alhamdulillah. Mhm. mais aujourd'hui xulil mhm. de réparer injustice tegaat injustice Comment ça Madame, Madame, assemblée nationale nous régler le processus, nous avons avancé, nous retrouver retrouvé ay droits euh, civiques Ousmane Sonko bi nekk ci un cas retrouver aussi sa plénitude d'action. Mm. et puis nous avons Le président nee na du bokk ñi ñee war a parce que sur le cas Khalifa ak Karim ma mm-hmm. jamais l'inspection générale d'État n'a parlé de détournement concernant Khalifa Abakar Sall. Mm. jamais ce qui a été accusé contre Karim Meïssa n'a été prouvé kon Jam jam, les tribunaux de Monaco la CDAO, dañu ci jamono ne Karim li ko teg du dëgg du Khalifa Sall li ko teg du dëgg du yoon baleen parce que état bi moom ngi politique. état bi politique boobu mu nekkoon di xeex adversaire politique et pire mu jural ko nag adversaire parce que la nature a horreur du vide ba ñu fàttee deux potentiels leaders di Karim ak Khalifa Ousmane Sonko a émergé. Mm-hmm. c'est ça après qu'est-ce qui s'est passé avec le nouveau discours mu gagné en audience Nous, ñu gagné xeex audience. parce que xeex biñ ko xeex mo doy Ousmane Sonko au-delà de son contenu qu'il a livré. Mm-hmm. après lan la jour légui nag nga ñëw ba tollu fi nak nga non non non c'est comme Kinan. naan non bu y a am adversaire yele moma gagné. gënal ki kon xaram ma délo si sauf que bi ngaa delloo signalé yàqal nga leen loo xam ni na leen terrain bu bëree baree baree bëri pour que ñu retrouver terrain boobu il faut encore un grand travail loolu la état au Sénégal liggéey en tout cas ce régime là léegi nag man damay jàpp ni bu démb doon tey C'est amaana Khalifa ak Karim kenn du leen xeex boobaa dañ leen doon bàyyi rek ñu ko exister voilà mais aujourd'hui on s'est rendu compte que c'était le bêtisier de trop mm. on essaie de rectifier le tir pourquoi parce que dialogue am na fi waxtaan nañu et dialogue am na fi waxtaan nañu c'est parce que da nga ko seq ak benn Khalifa Ababacar Sall qui a toujours dialogué eh, loolu nañ ko ko nangul nga seq ak benn Karim Meïssa Wade boo xam ni il a un parti organisé qui est à lécout et qui observe léegi nag kankay kay bañ a seqal nag moom tur Ousmane Sonko nekk de l'autre côté ngay wut pexe boo xam ni moom nga kaa faagaagalee waaye fi mu toll nii euh, à l'Assemblée nationale pour man ça de source